الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى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 أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu uh, ñi ngi jégglu bu baax ku nekk xam na ne tey imaam Muhammadul Muntaqa Sakho moo waroon a def waxtaan wi waaye xëy na trafic bi moo ko téye mi ngi woon ci yoon wi avant tàkkusaan avant ñu julli tàkkusaan ba léegi te ku nekk xam na New York moom léeg-léeg mën ngaa jóg waaye lu tuuti yàqal la saw yoon ba boo yoree oto ba la nga fay jóge mën ngaa sonn xëy na gàllankoor yu mel noonu beneen biit mooy euh, kilifa la tey bu yàlla dogal na bu bokk si ñi nga xam ne dañoo safoo daara ji ba saa bu ñu leen wooyee ci yu mel nii duñ jàppoon dañ koy bàyyi ñëw yàlla na ko yàlla fay ku yaatu la it koo xam ne ku bëgg diine la diine rek ka ko ñor lu baax rek ka ko ñor jamono bu ne ci lay yëngu xëy na jombul mën naa am mu ñëw ci kanam waaye euh, buñ waxee rek lu tolloog 30 minutes bu ñëwul ñu yamale ko fi rek xam naa ba beneen yoon bu ñëwee lu mën a am rek baax na xëy na loolu la yàlla dogal ndax benn baat sax jër ta xeeb ndax nit moom su bëggee jariñu jotaay ba nan lay yàggee amu ca solo waaye wax ja lan lañ fa wax mooy tax mu mën a jariñu jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a teewit yàlla na leen yàlla fay yàlla bindal leen tuyaabay koor barab la bopp di fi ñëw baax na lool ndax barabu yàlla la barab la boo xam ne yaakaar nañ ne biñ ko soseek léegi jaamu yàlla rek lañ fiy def kon ku fi teew ngir jaamu si yàlla rawatina nga teew ci jotaay bu mel ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo wax ci ab xadis buñ wérlu ne saa boo xamee ne ay nit daje nañ ci ab néeg ci néeg yàlla yi di jàng téereb yàlla bi di ko jàngalante malaaka yërmaande yi dañ leen di muur yërmaande day wàcc tiim leen ak dal tamit day wàcc ci ñoom yàlla tamit day digal ay malaayikaam ne leen sama jaam yi toog ci néeg boobu yi di ma fàttaliku di ma tudd bind leen leen ci ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci man kon alhamdulillah fi waqti munasib al imaam mi nga xam ne al al <laughs> qad xadar ma sha allah al imam al ma sha allah aleykum salaam xabibul atfal macha allah they love you so much ok kon ñu ñu ñu rek ñu jàbbatu kon mbokk yi ku nekk xam na ne weer wi ci lañ wàcce woon alquran borom bi subhaanahu wa taala wax na ci li cheikh Mouhamadul Fadal jàng léegi unzila fihi alquran ci weer wii ci lañ wàcce alquran hudan linnaas mu nekk njub goo xam ne pour nit ñëpp la wa bayyinatin min al huda wal furqaan waaye nekk loo xam ne ak njub la goo xam ne yàlla moo ko jële euh, maanaam ak ay leeral la ay kéemtaan ay leeral yoo xam ne yàlla moo ko jëlee ci ak njub jële ko ci alquran kon weer woo xam ne si lañ wàcce alquran ak alquran ni mu toll jaadu na weer woowu su dikkee ñu ci fàttaliku alxuraanul karim bu baax a baax ndax bu fekkoon ne niñ ko baaxoo di def nga xam ne lu nekk jamono tey jii ñu ngi koy anniversaireal bu at mi dellusee bu weer wa dellusee ñu koy feetu loolu alxuraan euh, moo ci gën a yey te yàlla yit moo ko njëkk a def ndax moo ko wàcc ca weeru koor ba noppi béral ñu ko kon béral gum ñu ko béral xamal ñu ko mooy yàlla ci boppam feete na ko feete gum ko feete looloo tax weer wi nga xam ne ci la alquran wàcc mu def ci ay ngëneel yu baree bari ak i tawfiix yu baree baree bari ak i ndimbal yu bari yoo xam ne defu ko ci beneen weer bu dul weeru koor ku nekk xam na ne euh, ci la euh, num tuddati ci la laylatul qadr nekk kon jaadu na ñuy jàng alquranul karim waaye di ko jàng di ko nafar alquranul karim nag niñ ko war a jàngee loolu incha allah dañuy def introduction bi ndax su ñuy def suñu mawdoo ci la ñuy waxtaan alquran dañ ko war a jàng bi lisaanin arabiyin mubiin dañ ko war a jàng ci làmmiñu arab boo xam ne kiy jàng alquran ak xeet bu mu mën di bokk xeet bu mu mën di bokk suy jàng alquran daf koy araabeel nee nañ képp kuy jàng alquran te bu mu am accent bu waxee ñu xam ne kii ab wolof la walla ab séeréer la wala ab tukulóor la wala ab français la wala ab ab ab américain la bu ca feeñee rek mënul alquran kon alquran moo tax nit ki daf cee war di sonn ba mel ca ne naar ya ca nanga xam ne noonu lañ ko wàccee ca ñoom yónnante bi jàngalee leen ko noonu léeg-léeg nag maanaam dees na wax naan ah naari naari naari déedéet dafa am ñaari façon dafa amuk naare ak làmmiñ bi làmmiñ bi moom ak loo mën di indi moom doo ko doo ko soppi maanaam kenn sëñ te jàng di jàng alhamdu ne alhamdu teg ko rek ci wolof nga sa baat dafa war a diis wala ngay jàng alhamdu ne alhamdu teg ko rek ci wolof nga sa baat dafa war a di dafa war a euh, maanaam waroo am maxaarijul xuruf déedéet maanaam parce que la taaka nga ne alhamdu loolu mooy li yàlla na ma wax muy cant waaye boo ne alhamdu exemple alhamdu boo ko waxee bu boobaa maanaa bi day soppi ko day tiri day firi def dara te tey ko maanaam tey bu fekkoon ne maam Cerno day romb fii rek daal di fil yëf yi mu daanu te jublu ko ci loolu mooy alhamdu bu dee alhamdu nag baat bi yàlla wax mooy xéewal yi yàlla def yépp ñu sante ko ci alhamdu bu dee alhamdu la waa ji jàng nag kooku mooy exemple lu mel na ñu jékki-jékki rek daal di màbb dara daaneel ko crash kon différent bi ci nit ñi léeg-léeg maanaam lu bari ci wolof yi surtout ñun bawal bawal yi danañ ko faral di def lu baree bari maanaam soo jàngee alquran génn ma maxaarijul xuruf ñu ne ah yow da ngay naare bien sûr dafa war naare ndax kii làkk français day français kii làkk anglais day génn accent américain booy làkk halpulaar da ngay pulaareel kon boog booy jàng alquran da ngay naareel si la bokk moo tax wo wa yuqra'u alquranu bi taxqiqi ma xadrin wa tadwirin wa kullun muttabaa ma xusni sawtin bi luxuuni larabi murattilan mujawwidan bi arabi alquran danañ ko jàng ci taxqiq danañ ko jàng ci xadir danañ ko jàng ci tadwir loolu incha allah danañ ci dikk ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee loolu mooy vitesse yi nga war a jàngee aayul ngay jàng ci làmmiñu olof misaal alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraata almustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim ghayri almaghduubi alayhim wala ddaalliin naareel nga bi nga génnee maxaarijul xuruf waaye wala feel nga ci daaj bi loolu mooy entre bidwil euh, diggante li nga xam ne moom la ñuy naaral gi naaral gi ñuy wax ak wolofee gi ñuy wax wolofee gi mooy ku nekk am nga sañ-sañu nasa xeet bi nga bokk nga jàngee noonu waaye li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk mooy maxaarijul xuruf exemple boo xoolee comme sëñ Fallou Mbàkke bu Touba bi jiite si jumaay Touba ji ni muy jàngee sa yaqulu sufahaau min annaasi maa wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha qul lillahi almashriqu walmaghribu yahdi man yashaa يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wolofe na ci daaj naare na ci ni ko yàlla digalee amul benn différence ak ku toog sayaqulu sufahaau min annaasi maa wallaahum an qiblatihim allati an qiblatihim allati kaanuu alayha قل لله المشرق والمغرب يهدي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم li ñu boole mooy maxaarijul xuruf force da nga koy araabeel moom ku jàng alquran bu kenn dikkee nag sa yaqulu sufahaau min annaasi maa walleehum baaxut xan xiblatihim allati kaanu alayha qul lillahi almashriqu walmaghribu yaadi baaxut ak ku ko man di jàng baaxut ak ku ko man di jàngal baaxut ak nu mu ko man di jàngee ak fu mu ko man di jëlee baaxut ngeen baal ma <laughs> kon alquran laazim ñu jàng ko bi lisaanin arabiyin mubiin boo koy jàng naareelal sama xaarijul xuruuf kantaan ak way bi nag baax na ok beneen daaj سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم xaw a jëm ci mauritanien bi ba tey daaj bi dikk na ba xam nag mën nañ koo def bu américain bi sa yaqulu suf dégg bu boobaa bu ahkaam yi dikkee rek baax na dañoo laaj Aïcha nan la yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàngee mu ne yónnante bi da daan way alquran léeg-léeg ñu ne alquran kenn du ko way dañ koy way alquran dañ koy way yónnante bi nee na man lam yataxanna bil qurani fa laysa minna ku wayantuwul alquran bokkoo ci ñun alquran dañ koy way moo tax jàng baax soo jàngee li wolof di wax teg ko ci lay boppam danga koy mën a génne sànni fële yonte bi neen man lam yata xam na lan mooy xam na xam naa bu imaam dikkee dana ci def différence dégg nga lan mooy al al alxanaa la dégg mooy way ki nga xam ne dafa toog di attaxanni mooy mi ngi def benn musique musique boo xam ne mi ngi koy def ci son li différence nag musique bi ñuy def mooy musique bee day ànd ak yeneen jumtuwaay te bii àndut ak moom waaye xatta moo tax alquran ay maqaamaatam dafa am ay maqaamaat quraaniya yoo xam ne kulluha day day am alaaqa ak li nga xam ne mooy maqaamaat yi nga xam ne moo di almusiqiya boo jëlee na haawundu jël sibaa dégg nga eh, daal di jël yeneen yi nga xam ne ñooy maqaamaatu thamaniya yooyu même maqaamaat yooyu dañ koy jëfandikoo ci ñoom umm kalsum bu ñuy way kon alquran dafa am musique boo xam ne musique gu alquran la boo xam ne waa xam-xamu alquran nag ñoo naan nii lañ koy defee boo jàng maqaama bi fii nga war a tënku booy taxan nii ci alquran di ko woy nii nga ko war a taxan ne exemple li ñuy wax euh, at taassuf yaa ngi way alquran waaye da caa ëppal wala da caa def takalluf yooyu la bañ maanaam def ca lépp jékki-jékki rek bëgg mu neex nga ne euh, euh, laaya ba ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس ki koy dégg ne oh ak a neex mais yàq la baaxut alxuraan wala ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس ana ban arab mooy jàng gë gë gë amut ok ولكم فيها ما تشتهي ok ban moo baax ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس nga xam ne bi ngay def tahiihi madd bi mi ngi nekk maddun tabi'i dafa war a nekk kon diggante waaxid itnayni mu yem amul benn sabab bu war a tax nga wax maa tashtahihi parce que li ñuy xëcc di ko def mu duut mu nekk arbau xarakaat wala sittu xarakaat day nekk mu nekk aaridun li sukun comme boo ne alhamdulillahi rabbil alamin foofu mën nga koo xëcc boo ne wala dallin laazim la mën nga koo xëcci jaiz mën nga koo xëcci comme lu mel na Euh, bu fekkee ne da nga wax wa ma adrika xaq kon foofu la ñuy yemale waxtaan wi <laughs> suñu imaam dikk na kon daal dañ doon def benn introduction ci anam yi nga xam ne noonu lañu war a jàngee alquran kon ñu dalal fadilatul imaam euh, Mouhamadul Muntaxa Sakho moom nag euh, xaniyun ani taarif xam ngeen ko bu baax a baax imaam la boo xam ne ku am yitte ci diine ji la ku bëgg yàlla akub yónnanteem ku bëgg ñu baax ñépp la ku fonk ñépp la ku bokk fépp la képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah te boolewoo woo ca lu lu ca bokk rek gëm nañ ne mu ngi lay safoo moo tax fee mu nekk ci Staten Island jàkka joo xam ne jamono bu ne këri diine yépp la fay dalal te fa mu dëkk sori na waaye fu ñu ko soxlaa ci daara ji mu ñëw kon nag ku jaboote ñépp la ku bari xam-xam la mën nañ ne faqiih la shibawayhi la allaama la ba noppi shaacir la adib la macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat te sàmm ko aar ko te bàyyi ko ci suñu kanam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fal yatafaddal yaa imaam dañuy waxtaane lu la neex bismillahi rahmaani rahim